برهام باء وراء ألف ثم ها ميم مجل فيض تيجان جخن نينان الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدر مقدار عظيم ورضي الله عن أبي العباس شيخنا أحمد بن محمد تجاني ورضي الله عن وارث سره شيخ الشيوخ سعادة الأنام مولانا ووسيلتنا إلى ربنا شيخ الإسلام الحاج إبراهيم نياس ibnu alhaji abdullahi radiallahu taala anhuma wa ardana anhuma jamian e, mbokki taalibe yi mbokki jullit yi seen mbokki taalibe ñu leen sopp ci yàlla sopp leen ci mawlaay cheikh al islam mu ngi alaaji Mohamad Jimlo moo bugg a barkelu ci lenn ci li nga xam ne yàlla doon ne doole woon na ko bàyyi ci faydu moom nga dégg ñu naan saadahu laaw faydan man dool kii day ñaan yàlla doole bàyyi faydu waaye man dama ne yàlla doole woon na ko bàyyi faydu muy rabbal ibaadi nga xam ne aaya bi ñu wax rabbi anzilni mundalan mubaarakan wa anta xayru munsilin wala manzilan mubaarakan loo ci wax baax e haraf wu ne mu tawasulci hatta bu bam demee ba ca rabbu baaga ñaari sadda sadda ba ca ne daf ko indil woy muy rabbal ibadi xaafira sunubi wa qaabila tawbi li taqbal tawbi bi tayba jiituka ilahi taayiban wa taliban wa qaadian wa ayba bi munsilin mubarakan tunsiluni wan fa huna jamia man qasadani أجر فيود العلم والأرساق لزمرتي وعزبا أخلاقي نالتهم أزوا وقازوا مهنا فذلك أنهم وأكد مننا زلت لبعض منهم الأقدام فالتزم عن لهم ففيك هام لين لهم من لين العديلة لمن أردت وارفع القيود نراهم في البث ورقاي أولي ديانة ما لا لاي يمنا وسعة وبذلا سائدا سخى لأبابي وألقى عابرا من طيبة أزدي إلى زواهري وأنت تدري باتني وظاهري نال المنى من قد أتاني أولا وآخرا يا آخرا يا أولا زالهني الأباب كل ديري وقد أتاهم منك كل خير لا درهم تنافس في الفاني إذ كل ما يرون حينا فاني لا ترهم تنافس في الفاني إذ كل ما يرون هينا فاني غيرهم إذ قل كفوا نعمي ونجنا من غضب والنخم أيدهم إذ قل كفوا نعمي ونجنا من غضب والنغم مصدقين منتصدقين وسائمين الدار هافذين باعوا النفوس السم والأموال كالمؤمنين هبز الأوالا أجب يا ربي بسر ذاتي وسر الأسماء وصفاتي ربي يا ربي فتى من فعلا ما قد قد ما قد قصدت أي تريم نيلا ربي يا ربي فتى من فعلا ما قد قصدت أي تريم نيلا كما أجبت كل عبد سالا فيما مدى فحققا عملا أنت الذي ترزق من تساؤ متى تشاء كما تشاء ما شاءوا أنت الذي ترزق من تشاء متى تشاء كما تشاء ما شاء أنت الذي ترزق من تشاء متى تشاء كما تشاء ما شاء وأنت أكرم وأنت أرم وأنت أجود وأنت أعلم أنت القني القادر المريد ولا يكون خير ما تريد نظر لطف سمعت كافيه إذ أنك هاي الودود الكافي تقلب الآيان بالآيان فلترفع الأقوام في أزماني قل لي صوبا فضلا وخر لي من كل شيء خير كن لي يا ربي بالهادي وساب الهادي فلتكفي سابي كل شر غادي يا ربي بالهادي وساب هادي فلتكفي سابي كل شر غادي يا ربي بالهادي وساب الهادي فلتكفي كل شر قادي رب الأمين أعطي بالأمين كل متالبي بكليني رب الأمين أعطي بالأمين كل متالبي بكليني رب الأمين أعطي بالأمين كل متالبي بكليني أعطيه بيد بغية وعجلة لي بالإجابة أحب العجلة لما أتعوت أراني نلت كل مطالبي ويني فستو لما أتعوت أراني نلت كل مطالبي ويني فستو ما قد أبت قائبا من ربي بل كل ما أبت سكرت ربي ما قد أبت قائبا من ربي بل كل ما أبت سكرت ربي ما قد أبت قائبا من ربي بل كل ما أبت سكرت ربي نعمه في ظاهر وباطن أسبق لي في الخيب والمواتن زال تقدري وساك عظم موهبة وهباء من يكرم لا زال تقدري وساك عظم موهبة وهباء من يكرم لدى هوا ليت تيبة فلتردا لدى هوا ليت تيبة فلتردا كل سرور أبدا وسرمدا يا رب سلينا على المختار وآله وصحبه الأغيار نعم الشفيع المصطفى والنعمة لي وسيلة أزال الغمة yow suma mbokkam taalibe maa la lay yóbbale rabalay bari xaafira suno bi jaam ki nga xam ne moom moom jaami di jégal jaami seen bàkkaar di la nangul seen tuub loolu la bàyyi hubbee rabal ibaadi may la ci tànnal loo xam ne war naa dal sa xel yow mi fa kastalu woon ba dugg ci ay tolof tolof bàyyi laay ñaanal ne fa daarik anhum wa aksir minana yow mi dem Tayba te yor yóbbaale ay tolof-tolof ak i damm-damm ak i euh, sa tànk rëccoon ba nga fakastalu bàyyi ñaan na yàlla mu dabaatalal la loola rëccoon la xanaa loolu jar dem tey ba mu delloo yow mi nga xam ne da ngay lijjanti lu jafe lu gën a jafe weñ gën koo dëgër amut mu ne yow yàlla yàlla na nga nooyalal taalibe yi seeni soxla yow mi noyaloon daawuda weñ gu ñuul mooy layin lahum man layanal hadila li man araata war fayal xuyóoda yow mi xamoon gàllankoor xam tënk-tënk fexeel ba dem tekkil tënk-tënk yi baaba lemin sax tënk-tënk yooyu tinkil na ko nee ku dem sa xaajo fajuwut nee na nanga ko poñe benn waaye na ma baaba wax ma ne ko li baaba xam moom la wax te ma ne leen baaba ñu ne ah leen waliyu la di doomi waliyu borom xam-xam la di doomi borom xam-xam jaamukati yàlla la di doomi kati doomi jaamukati yàlla nit ku sàmm la di doomi nit ku sàmm ku bugg mbindeef yëpp baayam buggoon mbindeef yëpp mu xëy na ñëpp jàmm. baayam xëy na woon ñëpp jàmm kooka moo wax kon lam wax noona la ñun kañ ñaan ca foofu ku ko dégg li nga ca war a teg man mii bu ma demee Tayba may jaayante naa yàlla ñaan ko suma xaajo yooyu faju waaye dinaa fi ñaanal baaba yàlla yokkal ko fanam yokk fanal njobootu baay yëpp ba mu man di fi ne di ñu waxal lii di ñu ndax lii day dalal xel ma ne yow mii dem tey boo demee bul fàtte baay bul fàtte njobootu baay bul fàtte Mouhamadul Amin Ibrahima ci waxam bii na ko foo war loolu dog moo xam fàtte ngay dem moo xam salaatu fàtte boo demee yéen na fa tabe ndax bàyyaa ngi wax yum nan wasiyaatan wa baslan zaayida suxaali abaabi wa abqaa abila boo demee na nga fa tabe ci zaahir taba ci baatin min taybati usdi lo zawal wa anta tariri baatin wa zahir naalal mun naa man xadaatani bàyyi nekk ko ñi njëkkoon a ñëw ci moom seen aajo faju kon waxi baaba jàngoog naalal mun naa man xadaatani awalan wa axiran ñii ñëw mujj ga it wa axiran ak ñay ñëw mujj ga te xaaju cee yaa gi nga xam ne tur la ci turu yàlla awalu axiru wala awalu wala axiru wa zahiru wa baatin wa bi kulli shay'in alim képp ku dem Tayba yalla dina faj sa aajo ak ci baatin bàyyee koo xool ña fa njëkkoon a dem yalla faj na seen aajo ñii mujj a dem yalla faj na seen aajo na fa njax njax njam fa njëkkoon a dem ñu ngi fa demoon ci yaa awalu ña fa mujj a dem ñu ngi fa demee ci yaa aaxiru kon nag laa darawum tanaafusu fil faani boo demee yan na leen tàggatal seen xol ba buñ fa bàyyee koo di goppalante xàdduna buñ demee ku yow mii dem Tayba boo demee na nga fa ñaan warsak anta alladi tarsuqu man tasha matal tasha kama tasha masha moo tax ñaan ko bané ne bàyyi la tradire fi te waxam da tradire waji traduire ñaan ñaankat ba defna àllum ijal ma sha muwafiqan lima tasha kay la yasira ma sha mukhalifan lima tasha wa ma naanu hatta nasha khilaf ma laahu yasha لو جاء الهبد وشاء ما كان له الا ما تشاء faltub bina fi ma tasha wa ma tashauna illa an yasha allah kon nag anta alladi tarsuqu man tashaau mata tashaau kama tashaau ma shaau natala lutfin sumaat fin kaafi is annaka hayul wadoodul kaafi gudd fana ngoog ngeen ñaanale ko fa wadoodoo ngoog mooy ngeen ñaanale fa ku leen gis bugg leen kaafe ngoog ngeen ñaanale fa yàlla jox leen lu doy tuqallibul ayaana bil ayaani ngeen ñaanal seen maam ya dem may yañ xamoon yàlla wutal ko ci yéen ndax loolu la bàyyi wax fii tuqallibul ayaana bil ayaani fal tarfa'il aqwaama fi asmaani bàyyi ñaanaloon na niti jamonoom yàlla yëkkati leen ñaan na xir lii sooban fadalan wa xir lii min kulli shay'in xayroo wa kun lii lu ne la ca gën bàyyi na yan nag ma ko tànnal ma jeexalee nag ci fi muy wax ne e, xiwal yàlla rek ko yor te xiwal yëpp mu ngi nëbbu ci ñaan gu ko ba nag joxal jaam bi ñaan ngu nangu ta nga ñaan ngu nangu it ba ca gën mooy nga gaaw moo tax bàyyi indi na fa ñaari baatu ah, gaaw aatil hu bayda boo yetan ajila lii bàyyee ko moom bil ijabati uhibul ajala moo tax nag yow mi dem ba tey ba ñaanal ñaan fa yàlla ci sa saahir ak sa baatin yàlla mi nga xam ne huwa les bi asbaqa aleykum nihama wa wa batinan moom la bàyyi wax ne nihamoo fi zahirin wa batin asbaqali fil xaybi wa mawatini waaye fi mu xuuteeg ñun moom baay moom nee na xiwal yi ñu yàlla jox ci zahir moom yàlla da ko caa naddil ca baatin bam doy yow it boo demee yàlla ñaanal yàlla tey ba yàlla naddil la ci xéwali zahir yi nga xeenu muy oto muy kër muy soxna muy doom muy lépp muy jigéen noonu doom ju baax doom ju barke jàngkat bi jëriñoo li muy jàng dégg ko yéey ak ku bugg bàyyi ku la gën a bugg bàyyi ñaana laale ko fa ndax tekki foofu la ne kon nag saala takkaduri wasaaka asam mu ne li loo nëtëx ci ndox mi ma e, teg pour naan ko walla soow mi ma woyal wala suma mbir lu ci doon e, ci doon e, def takkadur mooy mu xam yu ca dugg ta bokkut ca yow mi dem tey ba xamal ne loolu yàlla dana ko génnee sa mbir ba mu jeex takkadur mooy nga dugg ci ban bu euh, tooy say rëy yëpp takk nga xam ne léegi pour nga génnaat foog nga fóot ko yow mi dem tey ba bala ngay gën a am chance nag tawte fa ba takkadur boobu nekk sa ko yére ba nga yóbbaale yére yi sa kër bañ fóot ko fóotin moomu ba nga tuur ko ci sa bunt kër sa digg kër gune gu fa waaxu bu ne ko fa daagu mën ngaa mokkal alquran mën ngaa am xam-xam mën ngaa nekk aare bulla billaay waaye mën ngaa nekk ko koo xam ne ëllëg da ngay teggi ay njàqarek tiis kon nag zaala takaduri wa zaaka ahzamu mawhibatan wahabaha man yukrimu la daawalay taybatin faltaruda kulla sururin abadan wa sarmata ni nga dégg ci woy wi nag boo demee ba tayba fexeel ba bul fa génne benn waxay nag bul fa saaga ku la fa saaga jégal ko te yaakaar naa man nga ko fa njàkk loolu bul fa xaste bul fa jël xalali jàmbur bul fa wax lu dul noonu nag ci sang baat boo xamee da nga ko yenele ci kenn ci sang ko kon nag la daawa lay taybatin fal taruda kulla shurur abadan wa sharmata ya rabbi ala al muxtaari wa ali wa saabi al axyaari neema safi al mustafa wa neema lii wasilatu asal al xamma képp ku dem Taïba yal na yàlla nangu la ziyaara te boo fa béyee ko yal na yàlla ñàkk ci zaahir ak ji baatin boo amee doom ji jàng yàlla def mu tekki boo amee doom ji wut xalal yàlla may ko xalal yàlla barkeel njobootu baay gi yëpp góor jigéen mag ak ndaw jox leen seen càkkuteef yokk seeni fan wa ala ali xaqa qadrihi wa la azim seen soppe seen xarit al imam Mohamed Jimlo wasalaamu aleykum